Aliou maa ngi lay nuyu wax ci la téléspectateur maa ngi lay fay Omar Ndiaye maa ngi nuyu mbokki téléspectateur yu leeral point tv ak leeral point net euh, di leen sant di leen gërëm ci dalal bi ngeen ma dalal fii nii mu daal yemoo ak li nga xam ne moom mooy FESNAC di festival national des arts de la culture fii ci Fatick. yaa ngi nekk président journaliste culturel yi dëkkaatal ci nomination bi ak lu tax ngeen teg bii lay kuréel. waaw damay ñëw ci li nga xam ne mooy kuréel gi ëmb journaliste yi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllu aada ñoo duppee ko association de la presse culturelle du Sénégal. mu nekk association boo xam ni dafa ëmb journaliste yi nga xam ne ñoom ñëpp seen xam-xam dafa màcc jëmale ko ci wàllu aada ak cosaan. te ñu nekk ci ay rédaction ay télévision ay rajo ak ay presse écrite ñoom ñi nga xam ne nag dañuy tas xibaaru jëmale ko ci aada ak cosaan lu jëm ci musique lu jëm ci pecc lu jëm ci théâtre ak lu jëm ci ñoo ñu ñoo boole defu kuréel daal di ko duppee association de la presse culturelle du Sénégal association bi nag li ko wund mooy daal di gën a fësal daal di gën a yombalal nit ñi ñuy am ay information loo xam ni dafa bokk ci ay activités yi nga xam ni dafa euh, lamboo ci aada ak cosaan comme lu ci mel ni fes naag comme lu ci mel ni n'est-ce euh, ko comme lu ci mel ni ay activités yi am fii ci dëkk bi ak feneen ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci wàll woow dem wuti ay xibaar ak ay information ñoo daal di ko jox askan wi mu nekk ay information yoo xam ne ñi nga xam ne tamit seen bëgg-bëgg ci lu aada ak cosaan la nekk ñu leen di fësal di leen jox yooyu information loolu mooy association de la presse culturelle du Sénégal mmh. léegi nomination bi nga wax man maa nekkoon le secretaire général bureau bu weesu ki nga xam ne moo ne woon sama mag di sama grand frère di Alaaji Ndate Diop yàlla na ko yàlla yërëm nekkoon le président moo nekkoon son secrétaire général ma wuutu ko nag ci euh, mois de décembre bi ñu génn di atum 2022 ma daal di nekk le nouveau président de la association de la presse culturelle du Sénégal bureau bi nag ay journalistes yu ndaw rek ñoo ci nekk ay ndaw ñu seen xam-xam màcc ci lu jëm ci wàllu aada ak cosaan ak ñi nga xam ne tamit ñoom tamit bëgg nañ li nga xam ne moom mooy association de la presse culturelle du Sénégal ñu ñëpp ñoo bokk nekk ci bureau boobu noonu commencé nañ ay activité nag jëmale ko ci ay panel yu ñu def fële ca dakaar ci musée des civilisations noires amaloon nañ fa benn panel bu mag jëmale ko ci wàllu téere Fesnac bi it amalaat nañ fa beneen ewet activité bu mag mu ne ci benn formation boo xam ne dañuy tàggat journaliste yi ci wàllum bindum téere ak wàllum note de lecture maanaam nan lañuy xoolee ab téere càmbar ko ba mën koo gëstu ba mën cee bind article boo xam ne tey jii foo ko tàllal nit ñi leen xam ne kat ah lii kat njàng mu wër la ci formation boobu lañ nekk mu daal di yemook li nga xam ne moom mooy salon national du livre fii ci Fatick. bi euh, association ñaata membre moo ci nekk est-ce que c'est ou ouvert à toutes les journalistes qui souhaiteraient peut-être bokk ci. ah Omar association bi bu la bëggee wax membre yi ci nekk yëpp du ma fi jógee de. parce que ah. association bi membre yi bari nañ bari koo xam ne boo xoolee tey jii télévision yi mag yi ne ci Sénégal yëpp bu ci nekk am nañ fa ñaari membre wala ñetti membre ba pare région yi bu ci nekk am nañ fa ay section région bu ci nekk am nañ fa par exemple mën naa ni la boo demee comme Fatick gi ñu ne rek am nañ fi ay journalistes culturels yu fi nekk nga dem Saint-Louis am nañ fa ay journalistes culturels nga dem Louga am nañ fa ay journalistes culturels Dakar moom waxaale wu ma ko. Mhm. kon tey jii su ma la bëggee wax lim bi. ah bari na vraiment. mais ça se voit que ne peut-être amul resi amul en fait limite di xool. non non non képp ku am journaliste culturel rek. sa association non association bi tëjuwul. tëjuwul. c'est-à-dire képp ku bokk ci association de la presse culturelle du Sénégal nga nekk journaliste culturel nga bañ a nekk journaliste culturel nekkal journaliste bu nu ràññee bu nu xam jaar fi nga war a jaar am li yi wane ne yow mii journaliste nga nga ñëw remplir critères yi nga xam ni moom moom ngay remplir pour bokk ci association de la presse culturelle du Sénégal tojuwul fermé wul nous en collaboration presque pratiquement ak ñëpp. te dañuy liggéeyandoog ñëpp aussi tamit. Euh, li ci ëpp nag ci journaliste culturel yi comme wax nga ko li ngeen di toog bariwul. Ah. li seen activité dafay gédd tey association bi yenn disposition par rapport ak loolu la ciy jël rapport des yi yenn journaliste parce que des fois ah. xam nga par exemple li nga xam ni moom mooy aada ak cosaan dafa nekk loo xam ni dafa yaatu. Mm. wax nga ko ne nga li ngeen di toog bariwul. Mm. maa ngi fi Fatick. Mm. bu ma jógee fii Fatick mën naa dem feneen mën naa génn sax réew mi pour daal di dem couvrir yi li nga xam ne moom mooy xibaar bu jëm ci aada ak cosaan parce que tey jii boo xoolee musique ak cinéma dafa bari ay festival yi am biti réew tey loolu buy am dañ ci soxla ay journalistes culturels ngir ñu ñëw teewee ko ngir mën a fësal la ca xewan comme par exemple gis nga gis nga Aliou saw ministre de la culture buy dem yóbbu ñaari journaliste wala ñetti journalistes culturels buy dem fenn foo xam ne ay événement aada cosaan ñoo fa am day yóbbu ay journalistes yu bari ñu topp ko ànd ak ñoom dem comme ni mu ñu indee fii ci Fatick waaye kon tax na tey jii loolu moo waral suñ déplacement yu bari même bu weesoo tamit ministère de la culture bi ngay àndal di dem acteurs culturels yi ci boppam ñoom it dañ lay invité bitim réew ngay ñëw di couvrir ay événement dañ lay yóbbaale bu ñuy dem soo gisee par exemple waykat yi ay ñoom Youssou Ndour ak ay ñoom Wally Seck su ñuy dem ànd ak ay ngir su ko defee ñoom bu ñu demee ñu daal di mën a fësal la nga xam ne moom la ñuy def foofu ci lu jëm ci wàllu spectacle ak wàllu aada ak cosaan. waaw tey euh, culture bi koy wax d'une manière générale en tant que journaliste euh, nan nga gisee jamono ji place mais aussi ni nga gisee. taxawaay bi nga xam ne uh-huh. am ay quelques critiques am xam ne des fois peut être am nañu ci gisee hmm. yow hmm. boo si euh, am ci rôle bi nga xam ne waaw je pense que bu fekkoon cent pour cent la war a def ci liggéey bi hmm. ngir dooleel aada ak cosaan mën naa ne la journaliste culturel yi vingt cinq pour cent rek lañ defagul. lan waral loolu. parce que li nga xam ne moom mooy aada ak cosaan tey ji eh, rédaction boo dem télévision boo dem rajo boo dem benn journaliste culturel nga fa fekk wala jaari journaliste culturel parce que rédaction yi li ci ëpp ci ay journaliste mooy ñi nga xam ni ñooy yëngatu ci wàllu tàggat yaram ak wàllu politique yaari journaliste wala benn moo fay def culture su ko defee par exemple tey sax bu ñuy répartir ay tâches di joxe liggéey diw yaa war a def lii diw yaa war yaa war a def lii boo indee benn sujet boo xam ne ci culture lay wax dañ naa la xaaral bañ jox ñii ba pare su place amee nga dem su place amul nga toog kon mooy gëdd bi ci war a am ak doole bi ci war a am daa des te loolu bokk na ci li tax ñu gën a daal di sos kuréel gii ngir su ko defee ñuy mën di dooleel culture fii ci bitiri fii ci Sénégal ak àdduna wërngal këpp hmm. parce que tey jii la culture comme on le c'est le parent pauvre dans toutes les rédactions aujourd'hui parce que jàppale bi ci war ak dooleel bi ci war patron de presse yi sax ñoom defuñu ko ci moo tax it maa ngi leen di ñaax di leen ñaan ñuy dooleel seen i journaliste culturel ak seen i desk culturel parce que tey am na rédaction yoo xam ne amul desk culturel ah am na fa sport am na fa santé am na fa culture sax parfois boo ko fa dee wax sax dañ lay xoolaat naa la luy loolu moo tax it damay leen di wax ñu renforcer les capacité nécessaires pour permettre au journalistes yi nga xam ne ils aspirent à être de très bons journalistes culturels ñu leen di doole di leen soutenir. association est que ministère bi euh, recevoir na leen est-ce que ministère bi aussi euh, xam na ni léegi am na association boo xam ne taxaw na ay journalistes nekk fa ngir gën a mën dooleel culture. je pense que Aliou Sow le ministre de la culture moom. lu dem fenn te tuddul tuddul association de la presse culturelle du Sénégal Ali Sow dañ ko nommé une semaine après il a appelé à nous recevoir il nous a reçus dans son bureau il nous a aussi soutenus vraiment parce que ay journalistes culturels yu bokk ci ñun yóbbu na leen biti réew ñu ànd ak moom dem liggéey subvention aussi tamit parfois bu ñu ko soxlaa ci suñuy activité dañu koy jox parce que bi ñu doon def benn panel fële activité bi ñu génn ministère de la culture moo ñu soutenir activité bi ñu doon defaat nii ren fii nii ci fes Fesnac bii sax ministère de la culture moo ñu soutenir à travers la direction du livre ak la direction des arts ba pare it parfois man ku ci mel ni man wala ku ci mel ni keneen ak keneen su amee benn événement boo xam ne dañ kaa invité bitim réew mu war a dem te ay mooy mayu ko ko ministère de la culture da ko ciy fekk si da ko ci jàppale hmm. kon mën naa ni ministère de la culture suñu partenaire privilégié la ba pare ñu ngi ànd ak ñoom ñu ngi liggéeyandoo ak ñoom convenablement di ñaan yàlla aussi tamit euh, liggéey bi gën a tax ngir su ko defee ñun ñëpp ñu ànd dooleel loolu la nga xam ne mooy ànd ak cosaan. yaa koy wax sànq ci biir euh, rédaction yi des fois culture. farataa luñ ko euh, yaakaaroon ni peut-être yéen yeneen desk yeeg xale yi dañoo gis dafa gën a yomb parce que la plupart culture foog nga am benn culture générale bi foog mais est-ce que gisoon ni euh, type de journaliste bi ñuy nemmeeku jamono ji jot na à ce que ñu gën koo saytuwaat voilà. waaw loolu aussi am na ci waaye li ko gën a waral culture nag daa amul xaalis Omar amul xaalis imagine toi tey boo nekkee un journaliste politique da nga naan politique xaalis. parce que bu ma demee activité politique dinaa fa am benn weccet bu ndaw mais activité culturelle mën ngaa dem ba ñibbisi ab junni sax doo ko fa amee. Ah, les acteurs là. cest à mooy les acteurs culturels ñoom sax seen i doole matul. bay mën a récompenser ay journalistes. leen nag yow bu fekkee da ngaa nekk journaliste boo xam ne yow xaalis la tax a jóg doo def culture ñun nous faisons la culture par passion te tey it waxaat nga ko mm-hmm. pour nga def eh, wala nga nekk un journaliste culturel. il faut avoir les compétences requises parce que du n'importe comment la ñuy defee benn not de lecture du n'importe comment la ñuy bindee benn article sur benn œuvre musicale du n'importe comment la ñuy defee benn critique sur le cinéma du n'importe comment aussi tamit la ñuy ñëw di def euh, ay article ci li nga xam ne moom mooy ay exposition ci ay arts visuels ak yooyu y a des y a des techniques il y a des normes de le faire, il y a, des, une manière de le faire. Il faut être très cultivé dans ce secteur pour pouvoir être un bon journaliste aussi reconnu. xam naa nag ñenn ñi peut-être jot googu ñu am ñun ba koy def amuñu jot googu ba tax na tey jii boo xoolee ñun sax journaliste culturel yi ñu néew lañ ci Sénégal maanaam gële association bi am na rëy na te bari nañuy membre waaye comparé aux journalistes politique ñun ñu néew lañ. ah Omar li ma couvrir festival des arts de la culture bari na vraiment li ma ci jàngat bi ma ci am mooy li muy yokk ci lu jë li nga xam ni positif na c'est le brassage culturel entre les peuples du Sénégal du sud jusqu'au nord en passant par le Jolof la Njambur imagine-toi aujourd'hui nga gis benn groupe bu jóge Casamance fi ma cosaanoo man am nañ suñu propre culture ñu ñëw fekk si waa Jolof ñoom it ñu indi seen propre culture waa Fuuta indi seen propre culture yalaa ñëw lébu yu ñëw indi seen ndaw rabin ñun ñu ñëw indi suñu jàmbadong ñeneen ñi indi seen ki ñu ñëw ñu booloo nekk benn jaxasoo ku ci nekk valoriser sa propre culture loolu je pense que c'est un brassage culturel énorme booloo xam ne tey jii FESNAC mu ngi ci jouer un rôle moo tax na tey jii FESNAC mu ngi xam ne mooy festival national des arts de la culture dafa war a nekk aujourd'hui évétement boo xam ne man jàpp naa ne luñ ci def ci alal doyul. imagine fu par exemple tey jii FESNAC tax na tey jii les quatorze régions du Sénégal xam nga région bu ci nekk lu mu man wàllum pecc ñëpp xam nañu tey jii Louga mënoo leen cee génne wàllum tëgg. Kaolack mënu leen cee génne wàllum way Sédhiou mënu leen cee génne wàllum Salam mënu cee génne Ziguinchor Saint-Louis Dakar théâtre mënoo cee génne Louga ak Dakar loolu tey permettre li nga xam ne moom mooy ministère de la culture et de la communication ngir mu mën a xam par exemple tey jii ci les renforcements de capacité lan la lan la war a def ce qui veut dire que ñun le FESNAC c'est un atout pour permettre au ministère de la Culture et du Patrimoine historique de fair son travail convenablement ci li nga xam ne moom mooy wàllu aada ak cosaan ak permettre les artistes des sous-secteurs de la culture su ko defee ñu mën a liggéey def seen liggéey nu mu waree. tey jii fes naag boo xoolee tamit leneen lu muy indi ci mooy jàmm ak paix imagine toi par exemple man may parle may wax joolaa di wax mandeng sama mbokk Fuuta bee jugee. fuuta di wax alpulaar déggul li may wax dégguma li muy wax mais bu ñu dajee fes nag olof bi dina nu boole muy wax olof may wax olof lébu bi moo nu boole parce que lébu bi làngam olof la tey jii brassage culturel boobu tey jii amaana tey jii ñu bari gisante nañ fa ñeneen ñu soppante fa ñeneen ñu bëggante fa ay collaboration am ci ba tey ñu ñu jaxasoo mu nekk un Sénégal uni dans la et la prospérité, mais grâce au Festival des arts de la culture. 12 ans édition bi mooy leneen mooy du deuxième année mais gis ni si deux ans yi la commencé am un peu de visibilité. Mhm. loolu regretté woo ko un peu. bon xam nga waaw c'est à l'image de la biennale de Dakar aussi parce que boo xoolee tey ji la biennale de Dakar bokk na ci activité événement yi gën a mag ci lu jëm ci wàllu aada ak cosaan mën naa ne la ci ci àdduna bi ak Afrique. mais boo xoolee ñaari ati université tamit ci la doog am visibilité bi mu war a am fës gi mu war a fës fes naa git noonu la demee mais fes naa git daan na am daan na fës ay jamono mais dafa dem ba benn moment nit ñi dañ ci xawoon a tàyyeel ndaxte moyens yi moo demewul woon noonu mais tey boo gisee tey moyens yi ñu ci def doole bi ñu ci def communication bi ñu ci def ak pas-pas bi ñu ci def. taxaw na tey jii Fesnac ku ne nga bëgg a bokk Fesnac. sa amoon lu ñu ci war a améliorer notamment nag si condition wu nekk ni journaliste yi yow en tant que suñu président lan lay waa ngay. waaw man ngay def ci loolu. plaidoyer bi may wax ci loolu je m'adresse directement au ministre de la culture et de la communication euh, et du patrimoine historique autant pour moi monsieur Aliou Sow il est très ambitieux c'est une personne pleine de volonté mais xam nga olof Ndiaye nee na nag buur aayul dak Aliou, il a l'ambition de maitre des journalistes dans de très bonnes conditions. À chaque fois, lu muy def il met les journalistes au devant de la scène mais nag xam nga nit mënoo ne fépp mënoo ne fépp mën nga ni ñii samay journalistes lañ ñii maa leen indi teg leen tegal leen mën leen ci condition yu baax yi wane ginnaaw ñu am neneen doxale gis nañ bi ñu ñëwee gis nañ ci condition yu nekk metti woon na torop demoon na ba am ci ay jaxasoo yeeg yooyu noonu ay tiraillement mais luñ wax pourtant de ministre bi danay woon nañ yóbbu fii nañ ñu defal lii loolu dama bëgg moom tamit moom ak équipe ak ñu ko wër ñu ci bàyyi xel di indi journal bu ñu indetee journalistes yi la presse national comme la presse international ñu leen di teg ci condition yoo xam ni da leen di permettre ñuy def seen liggéey ni mu waree plaidoyer bu may am lu may def plaidoyer boobu lay def du alis c'est pas valable seulement pour Aliou Sow rek mais c'est valable pour tous les ministres képp kuy ànd ak journaliste di dem ak moom au fin fond du Sénégal teg ko ci condition yu baax parce que danga koo soxla la ngay def nga bëgg mu fësal ko kon nag teg ko ci condition yoo xam ne moom it tey jii dina mën a fësal la ngay def lool daal boo ma amee lu may wax loolu laay wax Omar. sa mbokk journaliste yi. sama mbokk journaliste yi aussi tamit li ma leen wax mooy c'est vrai que en commençant par man mii xaw naqari naa deret nag. waaye <laughs> ñuy ñuy dal tamit parfois ñuy am compréhension que dans la vie tout n'est pas rose que parfois bu ñu gisee ne am na loo xam ni matul ñu xool ñun ci sunu jëmmi bopp bu ñu ko mënee matal matal ko ba pare tamit di bàyyi yenn yi mu jàll. en commençant par man damay wax lu leer rek parce que décon déconné naa fii xam nga <laughs> kaas naa fi yooyu noonu waaye loolu lépp c'est dans le Euh, de bien faire les choses mais damay ñaax sama mbokk journalistes yi encore aussi di leen féliciter encore parce qu'ils ont abattu un travail énorme pour ce FESNAC donc je les je les félicite et je les remercie infiniment de représenter dignement la presse culturelle du Sénégal di leen ñaan yàlla aussi tamit ñu dal. looy ah, li may tàggatoo rek mooy carrément je prie pour un Sénégal émergent je prie pour un Sénégal ancré dans la paix et dans la stabilité yàlla yàlla. dolli jàmm ak sutura ci li nga xam ne moom mooy sunu gaal comme na ko maam Abdou daan waxee soo nekkee ci gaal mën a radiig ñaanal gaal ga mucc waaye bul ñaan yow mucc parce que bu gaal ga muccee di nga mucc ak mboolem ku ne ca gaal ga di mucc kon nag damay ñaan Sénégal lu fi nar a am ci fitna lu fi nar a am ci violence yàlla na ñu ko yàlla fànqal yàlla na ko fi yàlla jëlee indi ñu jàmm ak stabilité. jërëjëf Aliou Mané nekk président journaliste culturel yi moom lañ dalaloon fii tamit ci Fatick ci leer ne mooy Fesnac bi dégg li wax bi leen den aussi par rapport ak condition journaliste yi di ko sant di ko gërëm mais aussi di gërëm rek comme ni ma koy waxee woon yéen ñu doon suivre mais aussi di sant bu baax a baax Cheikh Tidiane Sène di leen jox rendez-vous très prochainement jërë ngeen jëf